bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilahi nacbuduhu wa nastaxfiruhu wa nastahdih wa nacuudu billahi min sururi anfusina wa sayyiati acmalina man yahdi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wasalaatu wasalaamu ala siraajil munir sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yawmi din amma baad ixwata al islaam ittaqullaha wa atiicuhu wa xaasibu anfusakum فالمسلم يعمل في هذه الحياة ليل نهار لكي يحيا حياة طيبة فيها ولكي يسعد في دار الآخرة برضوان الله ونعيمه ونعيمه فيها فالدنيا إذا موسم العمل ولهذا فالمسلم يجب أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى إلى رأس ماله وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح إلى الأرباح السائدة وينظر إلى المعاصي والذنوب kalxasaara fi tijaara wa yaxloo bi nafsihi saaxatan min axiri kulli yawmin yuxaasibu fiha nafsahu ala amali yawmihi fa in raa naqsan fi lfaraidi laamaha wa wabaxaha wa qaama ila jabri fi lxaal fa in kaana mimma yuqda xada wa in kaana mimma laa yuqda jabarahu bil iksaari min annawafil wa in raa naqsan fi fi nawafili awada nafsahu awada naaqis wa jabarahu wa in raha xasaaratan bi irtikaabi almaasi walmanhiyi istagfara allaha wa nadim yaqulu subhaana yaa ayuha alladina aamanu ittaqu llaha waltandur nafsun maa xaddamat li gad wattaqu llaha inna allaha xabirum bima taamaluuna wa kaana omar radiallahu anhu yaqulu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu wa kaana radiallahu anhu isaa janna alayhi leylu yadribu qadamayhi bidirra wa yaquulu li nafsihi maa saa xamilta alyowm allahuma yasir xisaabana wa thaqil miisaanana bil xasanaat mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nekkoon ci woon wane yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba rëddal ab doomu aadama ju mën a doon rek ngir mu war koo doxee ci kaw àdduna mu le woon ne pas-pas dafa am pas-pas boo xam ne da ko war a yor pas-pas bi nga xam ne moom la war a yor nag mooy diin mooy lislaam ginnaaw ba nag mu wonnu bu nekkee ci biir biir lislaam nan lañ war a doxa nan lañ war a doxee ci biir ñu mu ne woon ne nag ni ñu war a doxee ci biir moo di liñ lépp lu ñuy def ci biir na doon loo xam ne yàlla rek moo tax bare waaye buñ ca leneen bu dee xam-xam boo xam ne dañ koy sàkku nañ ko sàkku ngir yàlla bu dee jëf ju ñuy jëf nañ ko jëf ngir yàlla te loolee itam muy xam-xam ba ak jëf ja buñ koy def nañ ko teg ci kaw teggin mu tegaat ca nag ne boo na nga góor góorgóorlu ci farata yi nga xam ne nag moom la suñ boroom rëddal doomu aadama yi ngir ñu war koo def mu ne nag bul yem képp rek ca ca ca ca li nga xam ne mooy farata ji waaye day ci teg li nga xam ne mooy naafile ci war a ne buñ nekkee ci adduna yitam am na ñu fi bokkal nekk muy suñ mbokki jullit yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw àdduna mu xamaloon na ne ji ji mbokki jullit yooyee itam nañ leen di bëgg te di leen yéene li aw yiw li li yiw nga xam ne moom lañ yéene suñ bopp ginnaaw mu teg ci ne àdduna de man nga fee nekk am lu gaar ci sa kanam waaye liy gaar ci sa kanam yitam nee na da ngaa war a doon koo xam ne ku am fulla ga am doon ko am ko am fayda fulla mooy lépp loo xam ne du yaa ci yaa ci nekk ba noppi caa gis loo xam ne lu lay jariñ lu lay jariñ la wala loo xam ne njariñu doomu aadama la wala loo xam ne suñ borom bëgg bëgg na ko saa yow ko ca noppee gis rek ak koo ca man di seen yow na ko bàyyi nee na itam lépp loo xam ne jaar gaar na ci sa kanam tam doon lu baax doonte séenoo ci kenn itam yow góorgóorlu ba def ko loolu moom la ñu xamaloon ne mooy yoon wi nga xam ne moom lañu war a doxee ci kaw li nga xam ne mooy pas-pas bi ñu yor ginnaaw bi mu won ne bi ñu yoree pas bi am na ay xéewal yoo xam ne moom na suñ borom borom jox ba xéewal yooyu ñu man koo jëfandikoo ci suñ ci ci li nga xam ne moom lañu suñ borom sant mu ne nag xéewal yooyee na nga góorgóorlu ba di ko jëfandikoo ci lii la suñ borom sant ndax nee na boo ko defut day mel ni da ngaa da ngaa da ngaa sant suñ borom da ngay mel ni da xarab suñ borom te nee na képp koo xam ne xarab nga suñ borom wala nga ñàkk koo sant nee na am na loo xam ne moom la lay nigee te mooy mbugal moo xam ne mu tar la te loolu suñ borom moo ko waxal boppam la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la sadid ginnaaw bi nag loolu jàllee mooy fi nga xam ne fi la ñuy nekk fi lañ nekk muy àdduna nga xam ne fi la ñuy jëfee li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun am na nuñ fi war a doxe mu ne niñ fi war a doxe mooy ñu li feeg ñu ngi ci kaw àdduna rek di mën a yëngal cër nee na nañ doon ay jëfkat waaye buñ nekk ku sàggan buñ nekk ku doyat yi ginnaaw bu mu teg ci ne bu ginnaaw bi boo xamee ne nag ala adduna moo adduna moom noonu ngay jëflanteeg moom mu ne alaxira nag comme dafa doon kër goo xam ne du jeex ba mukk nee na kon danga ngaa war a doon ku góor ku kuy góorgóorlu ci defee ni nga xam ne mooy ku jëm ci kër goo xam ne du jeex ni nga ca war a ni nga war a taxawee noonu nga war a taxawee ginnaaw moom bu xamal ni itam ne bu ñu demee ci kër googee nag am na ñaari kër yu fa nekk benn ba mooy àjjana benn ba di sawara àjjana moom tudd ci waxu ci dara ndax da dañoo bëgg a won ne ku fa dugg ku nekk xéewalug suñ borom rek ak ak ak jàpp ndalam la moo tax nga dugg fa waaye du sa jëf moo yóbbu ndax bu fekkoon ne ndax li nga jëf lépp li tax nga man ko suñ borom a tax nga man ko kon am njëg àdd moom amatul njëg waaye li la mooy xéewalug suñ borom ak ak ak ak ak jàpp ndalam mooy li nga xam ne mooy tax ñu dugg fa moo tax bi muy wax li nga xam ne moom la ñu war a jëflanteeg àdduna ak alaxira nañ fa war a jëfe tuddut moom àjjana ndax xam na ne àjjana kenn mënu ko wutan njëg comme kenn mënu kenn mënu ko wutan njëg nag jëruta tudd waaye da def rek jëf rek boo nu fay mën a yóbbu ci kaw jër ne suñ borom ak ak jàpp ndalam sawara nag mu waxoon ne nu nan la ñuy def lanteeg moom mooy lañ ca mën a muñ ci xew mbugal fa nekk lu toll ni lañ ca mën a muñ rek nañ ko ci bàyyi ndax leneen lu mu mën a ndax ndax bu dul loolu mooy niñ ko war a fàggule fàgguluñ ko suñ bokk ginnaaw bi nga xamee ne nag tëral nañu yoon wii muy yoon woo xam ne nii lañu war a pas-pas bi ñu war a yor ci àdduna ak nit ñu fi war a doxe ak li ñu ak lañ lañu war a bàyyee xel alaxira ak nan lañ ko nan lañ ko war a jëfale kon nit ki li ci desaat mooy bu toogee ba mu yàgg war naa xalaat xool boppam ndax tegu na ci kaw yoon woowee nga xam ne moom lañ ko rëddal wala ñàkk na caa tegu bu ca ñe bu ca tegoo bu ca tegoo mu gën caa góorgóorlu bu ca teguwul mu jéem a yeddaat boppam te jéem góor góorlu ndax xam ne àdduna day moom niñ ko waxee woon jullit amut jot ndax li tax li ko tax ak ñàkk jot moo di ne dafa war a jëf ci àdduna ji luy tax mu am fi xew mu xewlu ni mu war a xewloo war a jëfal itam àllaaxira mi nga xam ne fa lañ jëm ëllëg te du jeex kon nag jullit warut am jot mu ne nag kon comme àdduna mooy mooy mooy barab bi nga xam ne fi la ñuy jëfee kon mu jullit bi dafa war a góor góorlu jullit bi nga xam ne dafa war a góorgóorlu nag dafa am ñu teg ci kawam yu ñu teg ci kawam da ci am yoo xam ne ay farata la dafa mel ni rek farata yi nga xam ne moom la suñu borom teg ci sa kaw dangaa war a góor góorlu di xoole sa bopp comme koo xam ne da ngaa yor da ngay commerce da yor da ngaa nekk ci marché ba di jaay ku nekk ci marché bi jaay nag da am loo xam ne mooy sa capital am loo xam ne mooy teg mooy tegtali li nga xam ne mooy tono tono ji nga am. am bu ko defee nag li lii sa capital mooy farata yi nga xam ne mooy mooy suñ moom borom teg ci sa kaw li nga xam ne nag mooy li nga li xam ne mooy mooy tono maanaam li mooy sa bénéfice bi nga xam ne moom ngay am moo di naafile yi nga xam ne moom ngay def li nga xam ne nag mooy wàññi sa capital mooy mooy yi ak bakkaar yi nga xam ne moom la doomu adama di am kon bu ko defee nag nit ki war naa toog waxtu wu nekk mu xool boppam ndax capitalam mu ngi mi ngi téye na ko ni mu ko war a téye war a téyewu ko noona mi ngi xool itam mbaam am ndax bénéfice bi mu war a am ni nga ko mi ngi koy am war a war ko am wala ndax amu ko bu ko defee nag mu laaj boppam bu dee capital am gis na ne mi ngi wàcc mi ngi wàññi ko na daal di yeddaat boppam te gën a góorgóorluwaat bu ko defee nag bu fekkee ne doon na fara capital boobee am na loo xam ne mooy war a mën a taxaat mu delluwaat fa mu nekkoon mu jëm caa daal gaaw góor góor def ko bu ko defut nag bu fekkee na itam doon na loo xam ne maanaam amut lu ko war a mën a. dool lu mën a delloowaat capital ba kon ni mu war a fa def mooy mu góorgóorlu ba bénéfice am bari ba nga xam ne loola dana mën a tax ni nga xam ne mooy capital am bu wàññi itam bénéfice bi mën koo loolu nag loolu bu ko defee nag li nga xam ne mooy doom doomu aadama noonu la war a doxee ci kaw àdduna mooy waxtu wu nekk war nay xool boppam ndax xam ne suñ borom day mi ngi koy xool bu fekkoon ne daa yem ci dafa yem rekk ci xooluk boppam waaye nag dafa teg jëmut ci xoolu boppam waaye da dañoo dañoo wutal ay malaayika yoo xam ne doonu ñu ñuy nelaw doonu ñuy sonn doonu ñoo xam ne doonu yoo xam ne itam danañ danañ danañ danañ danañ am benn benn waxtu boo xam ne dana leen rëcc te loolee nag te lépp lu doomu adama def malaayika yooyee nga xam ne moom la ko suñ borom booleel mi ngi koy bind kon wa bu ko defee nag doomu aadama war a bàyyi xel xam ne ki mu ko séqal day doonut ku ñuy nax doonut koo xam ne da nga ko mën a tappale doonut koo xam ne da nga ko bana a wan lu nekkut ci yow lépp xam na ko tey bu fekkoon ne dafa yem ci xam-xamu boppam rek ñu ne loolu la waaye yemut ci xam-xamu boppam da caa teg wutal la ñoo xam ne ñooy xool li nga nekke te bu ëllëgee itam li ci gën a yéemewaat moo di ne lay amu fa ndax lay mooy lii nga xam ne sa gémmiñ mën na koo génne waaye bu ëllëgee moom day taf gémmiñ yi ba gémmiñ yi dootuñ mën a taxaw di lay bu ko defee cër yi nga xam ne ñoo doon jëf ñooy wax ak yow ne la yaa def yaa defoon ci man nangam defe woon ci man nangam lu bokkut ak li nga xam ne lu suñ borom gërëm la kon doonu kon foofa doon na koo xam ne foo xam ne rëcc yombu fa jaar ci ab am pexe amu fa jaar ci ay tappale amu fa ndax suñ borom bàyyi na xel lépp te itam doonu maanaam maanoom taxam ma ak maanoom tax na du rek jekki-jekki àtte la ci li nga xam ne gis-gisu boppam la wala ci kaw li ni nga xam ne ni la gis ni la la gise waaye da cee dalaa wutal ñoo xam ne ñoo lay garde wut ñoo xam ne itam ñooy bind li ngay jëf di di bind li ngay wax ba ndax jëf ak wax rek moom mooy li nga xam ne moo mën a tax yóbbu doomu aadama ci mu doxee ni nga xam ne ni wërta wërta doxe doxe ni mu war a doxee bu ko defee ñu góor góorlu kon bu baax a baax loolu nag ku Seydina Omar radiyallahu anhu doon doonoon na koo xam ne ku ko doon bàyyi xel la ndax xam ne ëllëg di danañ ñu taxawal te bu ñu taxawalee danañ ñu laaj nañ nekke woon ci àdduna ndax noona la wala nekk wala nekkiwul noona bu ko defee nag loola li li nga xam ne moo la cay musal ba tax nga mën a jaar fa nga war a jaar mooy waxtu wu nekk na ngay bàyyi xel sa bopp xam sa jàng di jàngat sa bopp ndax yaa ngi ci fi nga war a nekk war a nekkoo fi loolu moo lay tax a mën a mucc loolu nag Omar Seydina Omar da ko daa def bu nga xam ne moom bis bu nekk saa yu demee ba nga xam ne tëdd jot na li muy def mooy day wut aw yat daal di kocc koccal tànk bi ne ko lan nga def tey ngir bàyyi xam ne dafa war a xool boppam xam ndax mi ngi tege fi mu war a tege wala wala nekkul wala tegewut fi fi nga xam ne fi la war a tege kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy ki nga xam ne moo mën a dimbalee dimbalee doomu aadama mu te te dimbalee na ko nag ci lu bari ndax ki nga xam ne sant na la dara. te lam la sant mu jox la kàttan goo ko mën a defee yëmut ci loolu waaye mu won la yoon wi nga koy def boole ci itam boo defee eh, boo ci defee boo ci jaaree noo ci wërta jaar mu wutal la bunt boo xam ne da nga ci mën a jégguloo muy jéggulu kon mu mel ni suñ borom wàccoo na ak ñun kon li des booy doomu aadama doomu aadama ji nag war naa bàyyi xel xéewal yu rëy yooyu nga xam ne moom la ko suñ borom defal ba di jéem a góor li dox ni nga xam ni la war a doxe di jéem a taxaw ni nga xam ni la war a ni la war a taxawee ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan tey borom ak mat mu dimbali nu ba bu ëllëgee bu ñuy seet fekk suñu jëf mel ni mu war a mel bu bu demee bay peese suñu jëf itam suñ suñuy jëf fees dell bas balaas ba nga xam ne moom lañ koy fee moom lañ koy peese yàlla nañu suñu borom taxaw yàlla nañu suñu borom sàmm allahumma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salatan tamxu biha kulla ma sadara minna mimma yuxaalifu ridaka min waqti wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabi'atina wa duyuunana wa kullama wajaba alayna laka aw li xalqika ijmalan wa tafsila wakfina bi jaahihi fi'la kulli ma la tuhibbuhu wa la tarda hatta nalqaaka raadina mardiina amin ya rabbal alamin allahumma ahdina fi man hadayta wa tawallayna fi man tawallayta wakfina sharra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka yàlla ya rahmaan ya rahiim ya sajjalaali wal ikraam ya kariim inna nasaluka aljannata bila amalin amilnahu wa naudu bika min annaari bila zambin taraknaahu wa nasaluka bi sitrika alladi la tusiluhu riya wala tuxluhu rima an tasturana fi daarayni wa an taxfadana fihima bi jaahi sayidina muhammadin sal allahu taala alayhi wa sallam wa xadimihi radi allahu taala anhu wa arda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin Thank you. والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay gi di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppook ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees édition ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi million millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions bu dee ci jigéen ñi première bi 1 million 500 deuxième bi 1 million troisième bi 500 000 francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi 500 000 francs deuxième bi 300 000 francs troisième bi 200 000 francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba di nga am ay neexal yu ñu la jagleel dépôt candidature bi dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة